oui merci beaucoup euh, en effet comme ni nga ko waxee suñu activité ba mun naa ne activité Sénégal lépp la parce que bateau bi Casamance du Casamance rek moo ko moom c'est pour Sénégal yëpp ñoo ko moom bon particulièrement waa Casamance ñoo ci gën a bénéficier wu. waxul encore euh, ñu dëkk ci îles yi mooy la ñuy wax les insulaires kon ñun ñoo ci gën a impact ñoo ci gën a impacté wu. waaw comme ni nga ko laajee effectivement au niveau de vue économiquement moom euh, vraiment euh, yëg nañ ko parce que daal lépp taxaw lépp taxaw muy commercant yi muy opérateur économique yi encore li point fondamental bi muy surtout le tourisme mm-hmm. bi nga xam ne euh, saison bi léegi la ubbi ça ne fait même pas une semaine peut-être c'est la semaine passée Euh, agriculture bi ak mbéy mi donc loolu vraiment fu mu nekk nii Casamance tant que batu boobu dox doxul ça ne veut du am mais li liñ ci war a am ak lu mu ñu mun a apporter vraiment su ma la ne ci cent pour cent yi moom presque li ñu am fu mu nekk nii amul même pas quinze pour cent. Mhm. bato bi nee mm. waaw euh, ni nga ko dégg ni nga ko waxee xëy na man tam noonu laa ko déggee. ñu ne le bateau est en mais fi mu nekk nii ñun euh, soo gisee suñu ñaxtu euh, ma porté ko par exemple un combat citoyen c'est parce que dañu amul lu ñu leer parce que dañu ne noonu bateau bi rek pan na kese kese loolu lañ ci am comme yow fu mu nekk ni euh, depuis ci kaw état au Sénégal bu ci suuf concierge yi nekk port sax koo ciy laaj lu tax bateau bi doxul kenn du la wax lu tax bato bi doxul parce que état baa ngi fii am na ministère boo xam ne concerné bi ñu wax ministère de l'économie maritime xam nga moom moo yor mbébét boobu lépp. Mm-hmm. parce que président su defee gouvernement su defee gouvernement par exemple am na ñu mu nommé ñoo xam ne ñoo koy jébdal kaddu gi mais ministère de l'économie maritime waxuñu dara ñun ñu ngi nii mosuñu wax dara xëy na mun na mosuñu ko wax ñeneen mais suñ ko waxoon ñu nañ ko dégg mosuñu wax dara dégguñ ci dara ci bato bi euh, service ci topp mooy ANAM. bokk na ñiy gérer port bateau itam anam dégguñ ci dara waxuñ ñu dara Cosama yor exploitation bi ci seen bopp. Cosama mhm. ci seen bopp waxuñu dara lu leer waxuñu dara balaa may naan ndax wax ndax nañ wax nañu dara lu leer mais waxuñu dara dégguñu dara. d'accord parce que ñoom ci seen bopp dañuy naan aussi waa Cosama sax ñi dañuy naan ñoom sax xamuñu lu tax bato bi dawalul te yéen a ñoo yor bato bi.